ngeen jëf mu mel ni ñoo ngi fii ci Mayel dëkku sëñ Babacar Ndiaye Cargaan ñoo ngi taxaw ak sëriñ Sam Ndiaye mi nga xam ne euh, sëtub sëñ Babacar Ndiaye Cargaan la waaye doon itam euh, loxo xalifa bi di tànkam di léppam mu doyloo ko ci lépp barab bii ñu nekk mooy mooy kër sëñ Babacar Ndiaye Cargaan gii ne fii ci Mayel néeg bi ñu taxaw mooy néeg bi mu doon jaamoo yàlla di fi liggéeyali sëñ Tubaa ba ci néeg bii la wuy jee boromam ci néeg bii la demee aljana day mel ni ñoo ngi taxaw ak sëñ saam dana am lu gën a mën a leer xam ngeen ni asdul xadim yitte ji mu am digganteem ak sëriñ bi mooy mag ñi bis bii ñuy waajal di ko defal sëñ Mbàkke Soxna Lo muy di ko ci ñaanal mu dëppoog le cinq juin samedi deux bii ñu nekk incha allahu rabbul alamin sëñ Babacar Ndiaye Cargaan lañ ko dara jaale ci ndigalul sëñ Moussa Ndiaye sëñ Mbàkke Soxna Lo waaye ci ndigalul mboolem bàyyi Khadim fédération bépp te bàyyi sañ Mbàkke Guèye mi jiite seex yi Daarul Xuddoos yi jiite ko waaye ci ndigalul sëñ Modou Diagne Daarul Xuddoos ci ndigalul xalifa sëñ sëñ sëñ Babacar Ndiaye Cargaan muy sëñ Babacar Ndiaye Marème mii ne fii ci Mayel ñu ñëw ànd ak sëñ Saam mu dinu leeral liggéey bi jot na waa internet yi topp Bichri TV ci àdduna bépp mën a déglu lii ndax man koo jariñoo ndax mag ñii képp ñoo jara roy buñ dégloo seen jaar-jaar ak ni mu dunde woon sëñ tubaa adduna bi jaxasoo gii mu am dana deñ ndax ku mel ni sëñ mbay cargaan mii njàmbaaram ak pëseefam digganteem ak sëñ tubaa amul nawle amul moroom loolu dañ koo war a roy ngir mën a jariñu ngir mën a am ngërëmul sëñ tubaa sëñ saam day mel ni yaa ngi doon leer waaw waaw moom day comme noonu nga wax bi mu ñëwee 1916 fii ci dëkk bi hmm. dafa yebaloon ab taawam mu ñëw fi 1916 Serigne Cheikh Ndiaye Ndéla muy waajur si Moustapha Ndiaye moomu ngeen fekk mexe bi mu fi nekkee ba nawet bi jeex sëñ Babacar fekk si ñëw seet sanc bi ba mu ñëwee mun ne ko Babacar day jub nga fi ñu ku tedd ki diggoon waaye des na ci la waaxoo ba bu demoon fii ci penkub dëkk bi am na guy gu mag gu fi nekkoon ngook lal bii xaj na ci biir bu mu fa ñëwee saan ànd ak ku ñu wax Mor Diop Diagne ak Seexu Ja boobu mu doon ay tuut tànk lañ bi mu ñëwee fekk sanc bi neen topp leen ci sama ginnaaw ne ma kii féete ndi joor kii féete ma jàmmañ neen di leen damm geer bi muy sëgg ngir su ma yeggee yéen fa ma jëm ngeen may si fi ngeen jóge woon mu ñëwee fekk fa moom laa lay wax kooku nuyenteeg moom mu ne ko loo fi wut si mu ne ko daara mu ne ko fii moom gayndee fi dëkk daana ko ne lee moom ay dem àll baay gaynde ga yu tooy daana ko tànkab baa ngi nii te guddi guddi fi lay fenaan siwaat mu ne moom mën la téye leen barab bi pël ba daal koy wax ne ko man de su ma la fekkaatee ki jaamu jox naa la sama bopp sëñ Babacar ba mu pël ba ñëwee di ko jox ne ko naa la dëkkoo baal jana tey jii may waxe yow barab bi ñu dénk sëñ Babacar Ndiaye Diagane euh, gaynde googee ma nga ci biir ba mu toogee nag ba war a sanc ne mu woo sëñ Maxtaar Mbay Keere sëñ Maxtaar Mbay Keere fekk ko fi ñu ànd fekk dëkk ba nekkoon ca penku bi ñu ñëw bi tolloog fii jàkka ji nekk sëñ Maxtaar yegg barab na ko Babacar dafii barab la mu ne ko nanu fërdal néegub yàlla doxaate ba fii néeg bi nekk sëñ Maxtaar Mbay Keere yeggaat suuf ko fii de moo ne barab la mu ne ko nan ma jëy li sama néeg ba ñoom ñaar kero fii lañu yendu fii la toogan wax ne man Baabukar yàlla teggil na ma farataay asalaamaaleykum sunnaas asalaamaaleykum daal ne farataay wa aleykum salaam de moo ma dese daana wax it ne fii ku ne fi jàng te fekkoo fi ku ne ne fi cëpp fekkoo ma fi boo fi ne jàng ma fekk la fi waaw lal bii ngay wax nii euh, mooy ñaareelu lalu sëñ Mat Saxeer Guèye bu mu joxoon sëñ Babacar Ndiaye Thiergane lal bu njëkk moom mu ko indee ñu monteel ko ko mu xool ko da koy bi saa mu ne bii lal jombal naa ko sama bopp daal di ko yónnee Serigne Touba. bañ ba ñu génn li ko waatee sëñ mat saxeet àndaat ndongo ñu wax Mor Talla Ndiaye mu wutalaat ko lal bi ci boobam atu tànk la moom am lu ci diisee nag sëñ Babacar ci lal bi moom Alaaji Mor Talla foog naa ku nekk dégg na turam mu doon ñaan gu nangu tomb ci yow xam naa daal asadul xadim loolu lañ ci may tàmbalee ba nañ yegg ci bis ba incha allah boo ñëwee fii barab bi dëkk bi dafa nekkoon ba dëkk bu xaw a ñàkkoon ndox waaye moom daan def ñaare fu mu masaa di ja def jàppukaay. day wax ne yàlla defal na ma fi barakatu boo xam ne dina am am mandarga. rand gi. rand gi waaw fii la ko bàyyi woon. fi mu daan teg ay tànkam di jàpp. fii la ko yàlla feeñal yi rand gi fee mu njëkk a dëkk noonu la fa amee woon fa mu dafa njëkk dafa jàppukaay. rand dafaa génnaat bi ñu tuxusee na mu ne foofu nañ ko def bisu bërëb jullikaay yoo waaw mi ngi tuuti ci penkob dëkk bi waaw noonu ma la wax ci kàddu googu ñoo nga nu wane léegi ci image bi ñi te rooti ba ñëw boobu wiir moo am wiir daan ne comme chambrayère bu mag ñu duy ko ne bu toll mu lonk nag ci wiir bi xaw ko bënn kooko am yéene bëgg a dindi kàdd ki kàdd gi mu tombeeg waxtu julli jegeñ am na ñooy tàkkusaan la am na ñooy timis la sëriñ bi génn ci jëm ki jàkka ji yem ci moom koo ko yor xepp bëgg ko dindi mu ne ko téye ngeen ma fee bàyyil sama karkar gi neen kàdd lay doon ëllëg te seer lay doon ci dëkk bi noonu ñi jaamu yàlla yi jébbuloo a jox ko seen bopp dafa mel ni noonu garab yi ak mala yi noonu lañ defan ak moom ndax kàddu gii fii ne boo demee raay ko daanaka ak nii maa ko gën a moo ko gën a weex dara ci dégg am ko suñu patli ko nag ba léegi noonu lañ ko noonu lañ ko fekkee ñuy ñaan yàlla nañ ko yàlla fayal ci taasiraat yi jeexintal yooyu nga xam ne dafay wane ne kii am na ngërëmal suñu borom waaw jëñ man bi may ñëw fii yàggut sama waajur dafa ma ne sëñ Saam ma ne ko Njaay mënu ma sëñ Tuubaa mu gent ma ne ko dëgg la mënu ma sëñ Tuubaa du taamu ngiis waaw daal ne ma Daaru Njaay sëñ Bay Cergaanu sañ ci coobareem moo sañ ci Màkka Taasaar ki coobareem moo sañ ci ki coobareem mm-hmm. moo sañ ci duggul ci coobareem moo sañ ci euh, ngojal ci coobareem mm-hmm. moo sañ ci Silaan ci coobareem loolu lépp ba mu ko def yaatal diine la ci bëggoon waaye ndigal la Serigne Touba nag mun a mun a mayal ngeen ci am ndax ba ko Serigne Touba di fii mm-hmm. yegg na ci dël ba ba ne leen dox leen sama digganteeg daay gi ci penku su ëllëgee ma dox seen digganteeg jahannama dëkkuwaay nag buñ la koy dëkkuloo dem ba li ki deel àjjanay ëllëg bu dee da nga wutub dëkkuwaay dëkkuwaay ngoogee moo tax na ñun ñu ngi jaayanteeg suñu borom daal bëgg li des suñu def ko fii buñ fi yàlla jëlee sax nana fi def si ñun loolu lañ koy ñu koy ñaan yàlla bu baax a noo ngi sant bu baax noo ngi bég waa kay jërëjëf bokk yi ba tey rek seen mbokk taalibi Achadul Khadim xam ne ni ñoo ngi fi mayel ci dëkku sëñ Babacar Ndiaye Cargaan ñoo ngi taxaw ak sëñ Saam gis ngeen kër sëñ Babacar Ndiaye Cargaan leen génne daare alquran ju mag ne fi ñuy jàngale alquran hmm. te it xam ngeen ni sëñ tubaa mi ko fi joxoon digaloon mu ñëw fi nee na yàlla may na ma alquran hmm. sëñ tubaa nee na ilayya rabbi salabal qur'ana fi ramadana fa sukuri ana sëñ bi nee na malakanil qur'ana tamlikan yadum bi annani xillun wa hibbun wa xadim hmm. moomam moomale gi ko yàlla moomale alquran nag moo ko may puissance ku mu am lan teel moom sëñ tubaa ci alquran dana la ci liggéeyloo sëñ bay cargaan nag dëkkam bii di mayel sëñ bi joxoon ko ndigalul mu sanc ko këram gii ñu bàyyi ko ay soxna yu tedd lañ fekk ci biir di ay saalixaat ñuy jàng alquran kon loolu mooy wane ne cërub sëñ tubaab bi ci alquran da koo wàll mboolem njabootam gi gis ngeen néeg bi ñu dugg ci la bàyyi ci la ci fi la wàcceeb liggéey gis ngeen lal ba ba ci rand gii nga xam ne wax nañ ne fee mu njëkk a dëkk ca penk ba ak rand fa amoon bi mu tuxusee fii tàmbalee jàpp fi mu def ab jàppukaayam ak rand saxaat fa rand gaangee fii ñu ñëw nag mooy kàdd gi kàddu gi nag dañuy bàyyi sëñ Sam mu leeral kàddu gi ci tënk lu ko sabab ak nii mu fi nekke ndax kàddu gu toll nii néewaa na nag nga di ko gis fenn moom ak lewetaayam bi ak nii mu mel loolu lépp fii ci Mayel laame kon bisimilah sëñ sëñ Sam nga leeral ci loolu. waaw waaw waaw Cheikh ñu ngi santaat bu baax a baax waaw noonu nga wax rek kàddu gi de moom dafa waxoon ne. kam ko dëëleen. ci bàyyil mag fi dana ko sama dana ko sama karkar gi. kàddu lay doon ëllëg te ëllëg seer la ci dëkk bi. noonu nga wax boo waree fii ñëwaa a gis garab gu ñu toll li ci gën a yéeme na mooy kàddu gu ne ci diggante bunt ko sëñ bi jàkka ji parental sax mën naa yendu ci suuf gi dëgg la de waaw wala noonu ni ko jaami yàlla yi nangoon jox seen bopp noonu la noonu yi moom it nangu looloon joxe ko boppam fam ku rooti woon dëkk bi nag bu dëkk bu ñàkkoon ndox lañ ba mu dëppee na booba wiir moo xew bi mu fiy jaar na mu lonk ci mu nar ko bi mu ko lonkee nar a dindi kàddu gi ndax xelal day yàq moom moo génn ci kër gi di julli si timis yam ci daal ko nan ma fi baal sama kàddu sama karkar gii neen kàdd lay doon te ëllëg seere la fi Mm. buñ ko nattee fi ne dañuy wax ne daanaka juróom téeméeri atam moom ci dëkk bi mat na fi sëkk moom kàddu yi waaw te ba tey ji gis na ko ndeysaan waaw ci ndimbalal nag la ko sëriñ Fallou Ndiaye woote woon nii sëriñ Fallou Ndiaye waaw ngir moom sëñ Madiou waaw a a wi lépp waaw ci yàlla yóbbu ak rek dinañ ko waajal bu neexee waaw lu lu ñu tënkoon bu ñëwee ñu jéem a fexe mu gën a tinkeeku insha allahu taala jërëjëf asadul xadim yi télévision Famatihul Bichri TV seen mbokk Asadul Xadim ñëwoon fii ci Mayel xam ngeen ne dañoo jël si woon digalul sëñ Babacar Ndiaye Marema mii nga xam ne mooy xalifaab sëñ Babacar Ndiaye Cargaan bis bi ñuy defal sëñ baak Soxna Lo te am ci ndigal ren mooy dixième édition fukki at ci ren mu tombeek nag ñu tudde ko jàmbaar joo xam ne gaynde la soldaar la dama koy tuddee liet naay bawal yi sañ Mbay Cargaan ñoom ñoo xettali bawal dañoo bokk ci ñi dimbali bawal ka leen sonaloon ba bëgg dox seen diggante sëñ Tubaa ñoom ñoo ko lemtul bawal gépp muy muy teeñ tanoor loolu la yàlla dogal fii ñu ñëwoon nag di mayel di sàkku si ndigal li àndoon ak mboolem internet yi ñuy topp di leen jox dig daje ci beneen jamono waaye itam di sant bu baax tey ñaan sëñ Saam nu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal sëñ di Njaay mexe sëñ sëñ sëñ sëñ Seex Njaay borom borom jàmm ak xaalis moom sëñ Masamba waaye sëñ Fallu Njaay moom sëñ Majju ak mbooleem njabootuk njabootuk sëñ Babacar Njaay cargaan sët yeeg ñëpp nag du du tu duma ma lim di bàyyi waaye ñoom ñëpp a ngi ci biir kóllëre gi ma am lanteeg ñoom dëgëri na ci dëkk bi noo ngi sant bu baax di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf